Ranérou euh, mooy euh, defe naa ni région Matam la euh, fukk lañu ñu ngi jóge ci fukki village yu nekk ci département Oudalaye ci biir rànneeru waaw fa la ñu jóge fa la ñu leen jëlee ñu def fii juróomi weer jàng ni ñuy utiliser li ñuy yàlla maam yàlla may mooy muy naaj bi ñu won leen suuti yoo nga xam ni moom la jëfandikoo pour jël naaj bi denc ko ba bu guddee ñu mën ko utiliser pour tal tal lampe yi biir kër yi mëna charger sen ay téléphone sen doom yi mëna jang ñu ba génn ci lëndëm bi sécurité bi mëna yokku euh, ci sen gox euh, vraiment sen sen dundi sen dundi yi changer euh a ñu ñu yëpp yëpp yokku waye ñun dañu japp ni des wër bo ci amé ay nga kër yar Euh, lépp loo xam ne def nga ko ci moom dafay law dañu naan du ñu yem ci solaire bi rek dañu leen di jàngalaale yeneen comme par exemple euh, nu ñuy defee ba bàyyi dagg dagg dagg bant wala di wari matt di defar seen këriñu bopp boo xam ne ci ay xob xobu garab yu yu dee ba pare lañ koy defaree wala ay ay kokko wala ay ay ay ay kiiw guy yooyu yëpp ñu jàngal leen ko fi jàngal leen ci euh, seen wàllu nutrition seen wàllu hygiène wàllu hygiène u jigéen nañ lañuy defaree yi jigéen ñi jëfandikoo bu ñu gisee si baax nan lañ koy defaree mën ko jaayante ba euh, loolu gën leen gën gën a baax ci seen santé éviter infection yeeg yeneen yu leen di lor yu leen tàmm lor donc lu bëri jëlee nañ ko fi lu weesu affaire solaire bi kese jàngur solaire bi kese. président Macky Sall euh, son excellence ñëwoon na fi ci janvier euh, visité ñu waaw ñu amoon ci mbégte bu baax ndax loolu lu rëy la njiitu réew déplacé wu ñëw ba fii ci ñun daal di tamit jàll ca Ndaayaan. balaa moo tàmbali la ko fay taxoon a dem dafa wax waxu suñu liggéey euh, waa daal ñaax ñaan euh, maire ya teewoon ne leen nañ leen nañ ñu jox foo xamante ni dinañ fa mën a tabax centre bu gën a rëyati boo xam ne ñu bëri nañ fi mën a ñëw jàng lii law ci biir Sénégal yëpp ak ci région bi ñu ko ci remercier loolu maire Popenguine Ndayane euh, dem na ba gis foo xam ne mi ngi ñu ko bëgg jagleel ñu ngi ciy liggéey ak moom xam naa du yàgg am nañ ci yaakaar Euh, ñu jagleel ñu ko ñu mën a tàmbali tabax boobu euh, incha allah xëy na bu boobaa président ñëwaat inauguré ñu ko bu neexee yàlla.